réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaaynu nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam. Ousmane Sonko bañ a ko téye ci kaso bi lànk donte Cheikh Baara mu ngi ñëw di teg ay teg naan ay xaw ma sëñ Mountakha expliqué yooyu naa ci wax Cheikh Baara suma xarit la trop mais moom des fois. fanatisme da koy ko quoi nanu may jàmm Sonko daa toog muñ dund lu metti tar tar ba yàlla fekk ko fa démb rek laa kay wax sama jabar démb rek laay wax sama jabar gis nga mbir yaa ngi commencé leer léegi nga gis tarixa yi jóg ne ñoom la tey Cheikh Baara dégg ngeen ko li mu wax loolu nag ñun patriotisme la ñuy dund Cheikh Baara su ma mag su ma papa la sax laay wax bëgg na ma lool man tamit ma séq moom jàmm mais dëgg non dëgg amul loolu ko quoi man Sonko ko a du mérite sa mérite là buñ ko jël di ko tappal kenn bi mu mettee dafa muñ bi mu mettee daf ko dund dund ngorom naturellement ba tey yàlla di dekkante situation yi ñu bëgg ko jël di ko wéer ay nit encore une fois Sénégal lii la bu mettee ñu ne yàllaa ko dogal bu neexee ñu ne diw la nañ arrêté loolu nañ arrêté loolu Cheikh Bara na bàyyi li muy def wax dëgg yàlla bu doon sama sago du wax ma ci teg baat mais ku Macky Sall bu waxee ma teg ci baat ah sëriñ sax bu ñu waxee ma teg ci baat Cheikh Bara bu waxee te waxul lu jaaduwul dañ ciy teg baat mais su doon sama sago waxam du ma ci teg baat parce que patriote la jàmbaar la gor la jullit la bëgg na Sénégal bëgg na Ousmane Sonko li ñu bokk li ñu bëgg li ñu bokk ñoo moo bëri maanaam li ñu boole moo ëpp li ñu tàggale mais nag am na yenn fanatisme yoo xam dañ ko war a arrêté parce que histoire dafay bind li Ousmane Sonko def histoire da ko war a bind léegi histoire bu nga ñëw di ci dugal naan ay sëriñ diw mo wax ak diw diw bañ diw ki te lepp histoire ñun ñu gis li histoire ko ne dañ waxon te deug Cheikh Bara na arrêté limay def ngir yalla partager len ma live bi dama bëgg ñu waxtaan quoi entre patriote ñu baña nek ay complexé nek patriote nak ça ne veut pas dire que tu t'es permis de tout dire la paix sénégalais ay ay mike loolu neex nga ñëw duggal ko ci seen bop yi loolu dafa wara arrêté manipulation bi dafa ëpp au nom de son nag la ñuy jàpp di ñu di len manipuler fanatisme bi dañ ko yamalé fenn li xew sénégalais yépp ci seen kon du jour au lendemain nga ñëw bëgg ñu waxaat leneen lo ne non lolu ne sax duggal ci bop xoma vous avez suivi Cheikh Bara tay wal fadjiri wala suivre ko sa tamit amna émission yo xamné bu question réponse la mais war na am contradiction Cheikh Bara ni koy bayé ci plateau bi muy wax dafa wax des incohérences dafa mais au moins nga relancer ko des questions de relance ne ko ah gaynde sëñ bi kat yow kat lii lu tax lii lu tax li lu mais day wax rek nga yéemu naan waaw waaw moom kay eh, moom kay eh, kon nii la demee reetaan après non dañ waxante dëgg quoi même man bu may def ak yéen live sax nii su ma waxee lu incohérent war ngeen ma ne Coran li nga wax nii commentaire ko parce que loolu mooy mooy it loolu mooy ànd loolu mooy loolu mooy waxtaan mais yow da ngay toog wax wax wax ay incohérence ki jàkkaarloo yow da laa war a dimbali Cheikh Bara des fois buy wax dañ ko war a dimbali parce que ay waxam fay beuri ay incohérence fay nakare duggal ci bop patriote yi nak ñom japp nañ ay saint lañ wala ay intouchable lañ ba kenn du len tuddu wala bu patriote waxe lu mu warta wax kenn du ci wax xalaat dedet li question histoire la histoire day bind li, Ousmane Sonko li dundu bir Senegal, Sénégal ak liñ ko fi daj ak seetaan giñ ko seetaan ak wor giñ ko wor ah ak toroxal giñ ko toroxal histoire da ko wara bind kon histoire du ko bind ñu ñu bolé leneen lu ci bokul loo xamante ni bokku ci loolu ñun duñ ko seetaan nañ waxante dëgg bu fekkee damaa juum ngeen ne ma damaa juum man banuma ku ma ne Kona da ngaa juum mais boo ma ne juum boo tegee sama wax da nga fay indi leneen teg ko fa ñu bëri ñu ngi félicité conseil mais li am lépp benn nit moo ci am mérite a part le peuple sénégalais benn nit moo ci am mérite muy Ousmane Sonko amul keneen ku ci am mérite keneen kuñ ci utal mérite dañu laa bëgg a tagg dañ laa bëgg a takkal garaat amul ginnaaw le peuple sénégalais ginnaaw le peuple sénégalais Ousmane Sonko moo ci am mérite benn amul keneen waaw lépp lu ñu mus a lu ñu mus a dal ñàkk bañ moo ñu ko xañ te sax ñàkkuñu ko parce que nee naa loo fen ba jot ci sa wërsëg la woon ba waxoon dëgg yaa ko moom chaque jour dama koy wax loo fen ba jot ci sa wërsëg la woon même soo waxoon dëgg yaa ko moom comme ñun japp nañ ni deug du yakal kenn lo amul ci deug rek xamal ni du sa wërsëg man lool la gëm parce que amna lo loo day bëgg a ëpp daal am nit ñi ñu ngi may déglu ah amna audience ah les gens m'écoutent mais je dis ce que je veux ah mais sénégalais il faut les respecter dañ waxante deug il ne faut pas abuser li abus abus la parce que man mënu ma nang wax deug yalla nak ah lii quoi toog di wax sénégalais ay mais Macky Sall loolu lañ koy xeexee ak gouvernement am lii day am ñu ñëw di ñu wax le contraire léegi ñun ñu bëgg a nangu nag ñun tamit toog bëgg a wax sénégalais yi le contraire les sénégalais ont vu maanaam Sénégal nu mu si met da ngay gis ak sa bët ñu ñëw di la wax le contraire que li nga gis mais c'est grave loo xamante indi indiwuñ ci benn preuve seulement des mots mais lii c'est malhonnête situation mi mu ngi décrispé wu Ousmane Sonko yàlla may na ko ndam ña ko doon taqal tey ñoo taxaw setal ko. léegi nga bëgg koo dagat non mais c'est grave ça c'est grave vraiment ce qui ce qui li li nekk di xew nii moom saa yi ku mu jaaxalul ku mu ku mu tiitalul yow yow yow dootoo tiit ah dootoo mais ñun nag moom am nañ xarit am nañ ñu ñu bëgg am nañ ñu ñu faa Cheikh Bara ci la bokk waaye nag faa la bëgg la wala naw wala ñee la wala kii du tax ñu wax la dëgg yow nag soo ñu waree wax dëgg waxoo ko sa affaire la te dëgg bi sax bu dee yow bu ma neex mooy bu dee li ngay wax sa intérêt bopp la say mbiru bopp la yàqalul Sénégal dara bu la neexee toogal si télé bi fenn loolu sama yoon nekku si wala toogal si télé bi sos wala toogal si télé bi nga wax loo xamante ni gëmoo ko loolu sa si yow la mais loo xam ne dafay changer destin wu Sénégal loo xam ne dafay laal Sénégal dafay laal peuple bi dafay laal histoire Sénégal wala dafay laal intérêt Sénégal képp ku toog si télé bi di koy wax te nekkul dëgg ñun ñëpp dañoo am obligation képp kuy porteur de voix nga jug nga wax ni lii kat wuute na ak dëgg mu nekk sa mag mu nekk sa rak mu nekk koo bokkal ndey ak baay mu nekk koo xam mu nekk koo xamul mu nekk koo faral kaam mu nekk koo faralul kan loolu mooy maandu loolu mooy dëgg sénégalais nag bu ñu nee maandu dañuy foog ne maandu mooy nga gis ñuy dóor Abdou Salam Diop sa yoon nekku si nga romb ko bàyyi ko ñu koy dóor sa yoon nekku si ndax moo tooñ wala tooñul yow pour ñoom loolu mooy maandu loolu du maandu te loolu ak seetaan la ak nafiq la loolu ak seytaane la maandu te mooy nga gis dëgg nga ne ay dëgg gaa ngi Sénégal boo gisee ñu naan non man damay maandu quoi sama yoon nekkul dama si maandu sa yoon nekkul lépp lu dul dëgg di am sa yoon a ngi ci te eh, noonu la maanaam maandu te ça ne pas dire que damay gis Abdou Salam wala Baara Cissé mii doog a commentaire nii Baara Cissé di def naka sudul noonu mas ma noppi ci dem sama yoon pour ñoom Sénégal pour ñoom loolooy maandu déedéet loolu du maandu te maandu te mooy nga gis Baara Cissé di def lu dul yoon ci penc mi nga xam ne lii du dëgg xulaay taalaa nga taxaw àtte dëgg même bu dee Baara Cissé moo lay jox ndékki wala moo lay jox añ wala Baara Cissé yaag moom yéen a bokk ay intérêt yow tu as l'obligation nga wax fi dëgg gi féete loolu mooy maandute mais Sénégal day gis loolu dëgg nopp ci ñu wax mu naan man damay maandu ñun dañoo maandu lool du maandu ak naafeq la ak man damaa neutre neutralité amul eh neutralité amul Ndiaga mbay nee na ku ne am na fu mu far mais sama bay Abdul Aziz bax nenek, nak far ta ñak waye bo faré nga par parlo nak par parlo lay bañ farna, naa Pastef la faral Ousmane Sonko la faral lu bëgg Ousmane Sonko bëgg na la ku takk ci Ousmane Sonko bëgg na la Sénégal la faral ku bëgg Sénégal bëgg na la ku takk ci bëgg Sénégal bëgg na la waye nak duma parlo moy yow la faral lo def non la looy waaja def noonu la comme ni Macky Sall noonu la ko ñi mu àndal ñi mu àndal noonu lañ ko def ba mu réer nii ba mu gëlëm xamatul fu mu jëm mooy dañoo ànd ak moom ànduñoo ak moom ànd nawle naan ko loo def noonu la looy waaja a def noonu la loo bëgg noonu la naan ko ni ah, xooma lan Fatick nga dëkk ah, xooma nan kii mooy di ko tàgg yaa fi ne yaa wóor boo bàyyee Sénégal Sénégal yàqu tëjal rayal dóoral am na sax benn xaalis benn imbécilu géwélu géwélu imbécilu xaraam géwél yëpp mënuñu ne ndax man maa ngi nii damaa géwél la ba dee sama jabar loolu la ma wax chaque ne ma man yow maa gëm ni doo géwél dina ma jaaxal parce que man dama bëgg géwél ngéwéle waaw parce que géwél aar la mais dafa am ay ñoo xam ne ay défaillant lañ ci biir xeet boo dem am na fa dafa am ay ñoo xam ne ay défaillant wu géwél lañ te géwél yi am na ay gor ay julit man dama leen fan quoi parce que aar la quoi xam nga toog war a wax normal naan ndaw lu rëy xam nga loolu te pourtant war nga mën a wax waa ndaw lu rëy lii dafa rafet mais aar bi ñuy waxee ak bi ñuy defee dafa neex te société dafa war a am loolu dafa war a am ñoo xam ne nga leen di xool rek reetaan da nga leen xool rek bég xam nga ni sa dëgg-dëgg ndaw lu rëy yaa wóor di la waxal loo xam ne lenn la du dëgg pour lekk sa xaalis naxante boobu ak yooyu dafa neex quoi moo tax nga gis bi benn imbécile lu géwél toog fi nekko ko Macky bam ba mu nekkoon naam mu ko président daa war a rey di tëj ana ñooñu tey loolu laay bañ nag mu dal ñu ñun patriotes yi wala ñun ñu bëgg Sénégal mooy di jayante di jaayante di jayante ba tàbb ci teen est-ce que vous ma suivez man moo tax sénégalais nag buggul ku naan ko say kàddu yi kat ni mu ko gisee du noonu. premier point bi damay leeral ci mbirum Cheikh Bara Ndiaye léegi li tax ma leen Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye wallahi wa rabbul kaaba dama ko bëgg moom xam na ko jabaram xam na ko ndax dafa baax. gis na wax yi muy wax yëpp waxu ko ngir dara dafa bëgg a rafetal wax yi muy wax ni pour dafa bëgg dañ ko sas mission bu metti mooy ko gars yi dañu bëgg mu leen di sargal seen ginnaaw te loolu bu ko bëggee def rek day metti sëñ Bass Abdou Khadre bu bëggee ko ko ragal ginnaawam xoola na ko defal boppam dañ waxante dëgg bu bëggee tamit défendre sëñ Mountakha na ko defee du autre manière mais bu nañ bàyyi projet bi nañ bàyyi combat bi ca baara s'il te plaît quoi bu la neexee xoolal taggal say sëriñ taggal leen seeni maam mais yow ñoo xamante ni seen responsabilité doo leen ko mus a rappeler waaye nag bëgg yoo xam ne ñoom ñoo ko def te ñun gisuñu ko teguñu ci suñu bët te yow mosu mu ñoo dégg nga taxaw ne ah vraiment tey moom wax dëgg yàlla nag sëñ bi war naa wax parce que nag wax dëgg yàlla mars deux mille vingt et waxoon na bu ñu la déggoon nga wax loolu sax tey soo ñëwee indil ñu information bu favorable à sëriñ si dinañ ko mën a dégg mais chaque jour bu ñu la laajee lu jëm ci loolu da ngay sëgg taxaw nga sax wax fi dëgg euh, porte parole lu laayeen yi mooy bi mu naan jihaat jeex na mais musuma laa gis nga taxawee noonu ci côté murit te fa nga bokk te nag dëgg boo koy wax fa nga ko war a gën waxee mooy fa nga bokk soo ko waxee feneen mu am sens porte parole laayeen yi taxaw nga ne ko fii bu bu kenn sëriñ taxaw naan jihaat jeex na li nga wax mooy dëgg léegi kon pourquoi de côté bi nga bokk nga xam ne fa nga war a gën a mën a accentuer say dëgg mais duñ la dégg nga def ko fa ba pare nag da ngay ñëw di ñu indil loo xamante ni ñun mënuñu ko dugal suñu ko yi Cheikh Bara Ndiaye Sénégal nag dañoo gaaw Kona mu ngi attaqué diw attaqué wu ma saagawu ma waxuma lu ñaaw Cheikh Bara su ma wóolare la su ma kilifa la su bi ma ñëwee États-Unis fii ñi ma njëkk a moom ci la bokk billaay wallaay wa taalaay te dama koo naw chaque jour dama koy wax mais nag je suis obligé ma wax dëgg sinon je ne serai wax keneen dëgg ci moom ñu gis Cheikh Bara mu wax ni te yàgg nañ konaa képp ku wax loo xam ne jàpp na ni bokkul ak réalité bi wala bu àndu si gis-gis da koy wax may sëgg ay waxam day mel ne damay par parloo te bugguma par parloo je veux être quitte avec ma conscience nañ waxante dëgg kon nag buñ toogee si télé bi ne daanaka sëñ Muntaxa moo tax loi si bi am daanaka kon mun Muntaxa moo tax ñu génnee prisonnier politique yi daanaka kon sëñ Muntaxa tax Sonko Macky Sall war koo génnee mais loolu dëgg loolu se du dëgg wallahi du dëgg wallahi du dëgg wallahi du dëgg wala boog ñu indil ñu preuve nañ ñu indil preuve te pourtant émission bee paase rek nga taxaw ne sëriñ si nag war nañoo maanaam xam naa ni Macky Sall daf leen a tegoon ci ci ligne daf leen a nax wax leen dara léegi xam naa ni moom buñ demee ba xam ne lim leen wax du dëgg dinañ jub xanaa wax. tey nga indil ñu information ni ñoom ñoo wax ba tax gars yi di bàyyiwaat léegi ban laay gëm man ba man ma ne la ah bu dee sëriñ si a waxaguñu ba léegi day gëw ma ni seen wax est que dekkul trop na te bu dee Macky Sall moo leen wax ba ñoom li ñuy gis ak li leen Macky Sall wax li leen Macky Sall wax moo leen gënal li ñuy gis Macky Sall di jëf di toroxal di lor di la doon toroxal rey ñi léegi donatul léegi institution yi lay toroxal ak constitution bi ñoom ñi ci teg seen bët ñoom leen Macky Sall wax moo leen gën a doy li Macky Sall di jëf loolu seen affaire la man pourtant bar barki dem rek def naa ci vidéo Cheikh Bara wax la ne ah wax damay ragal mu trop tard te kilifa du àtte dafay artu tey nga ñëw nañu léegi Ousmane Sonko waron na génn bu yàgg ndax seigne Mountakha mo ñaan Macky Sall te seigne Mountakha mo jàkkaarloo won ak ñun nañ mars 2021 ne man dina ñaan ñaan na parti bi ñaan parti bee ñaan na Macky Sall ñaan Ousmane Sonko tu si lamiñu ab seigne Abdou Samad ne su fekkee ni may nañ ma dina taxaw jakarlo ak wax ni may nañ ma sude dee ñuma ma dina dinaa la wat ak yeen wax leen ni mayuñu ñuma wa legi bi mu ñaanee Macky Sall Macky Sall mayu ko comme niñ ko waxee lutax tax la wul askan bi ne man ñaan na Macky Sall Macky Sall mayu ma comme niñ taajee won Ousmane Sonko ñëpp diko ko dégg mu koy yedd pour une première fois politicien ci àddina benn Ousmane Sonko le serigne musa taaj deux fois porte parole la haine ak ak ak ak serigne Mountakha taaj ko ni mu tok mu nan ko dama lay laye bir bëgg jot ci nguur jarul bakam bi ma ko njëkkee wax Sénégal dañ maa naroon a lekk ma ne leen sëñ Mountakha kilifa gu mag googu ni mu jàkkaarloog Sonko Sonko da taaj ko ne ko sama njaboot nga dama lay laajee biir di ko micro yi dékk caméra yi dékk Sonko toog ci suuf mu naan ko nguur jarul bakkan bëgg jot ci nguur jarul bakkan dama lay laajee biir ñun ñëpp ñu gis nañ vidéo bi ma ne leen nag waroon naa boobu woo Macky Sall ba mu ñëwi it mu ne ko bëgg a des ci nguur jarul bakkan ndax coow li Ousmane Sonko ak Macky Sall ko seq. ñu ne ma waruma kaa wax amul luñ ma waxul amul luñ ma waxul mais sama xalaat la bu dul sama xalaat la obligé wu mu def ko par force mais sama opinion la des faits lu factuel la ma joxe ci sama xalaat ñu ne ma non non non doo ko wax kon tey jii Ousmane Sonko kenn waxul kenn kenn sosul ay faits la ñuy wax. mars 2021 Serigne Mountakha Mbacké gis nga lii naruma ci woon waxaat mais Cheikh Bara bu ñëwee indi lii dañuy fàttali nit ñi kenn du nax sénégalais yi histoire kenn du ko falsifié yàgg nañoo falsifié histoire Sonko tamit li mu daj coono yi mu daj ak góor gi mu gore ba yàlla fekk si ko jox ko dëgg kenn du ko jox keneen victoire bi kenn du ko jox keneen victoire du peuple sénégalais la ak Ousmane Sonko léegi 2021 lan la ko wax dama leen a yoral bor te yàlla na ma yàlla may ma am job am jomuk fay ko am jomuk fay ko moo bii la sëñ Muntaxa utiliser am jomuk fay ko mais bi coow li seddee ba lépp delluwaat normal deux mois trois mois lañ ci teg Macky taxaw jom ñaajo li fi xew dootu fi xewaat nañ xam ne li fi xew dootu fi xewaat recruter ay nervi renforcer police bi renforcer ay jënd ay armes di barricade di dóor continuer rythme bi mu nekkoon pourtant ay nit solaat nañ seen daal dàll dem si moom ne ko ah sëñ bi dossier ba taaloon réew mi day ba nit ñi jóg ci ba ba mu ba mu taalibe yu bëri sonn ci ba nga jugoon wax ci dossier boobu Macky Sall mu ngi koy yëkkati waat mu ne leen waaw mais zéro réaction ba lii xew xew ñu barricade Ousmane Sonko cinquante cinq jours toroxal ko jàpp ko mais xanaa fàttali ko bi ko Guy Marius Sagna bi tatafu ci procès Mame Mbaye Niang ñuy a rey Ousmane Sonko mais loolu yëpp ñoom te pourtant pourtant wax foofu la ja wax foofu la jaadu woon ñuy seetaan ñuy toroxal gorsi ñuy seetaan ñuy toroxal gorsi ak njabootam di se ba muy julli ci jumaa nag loolu rek jaroon na bépp sëriñ bu nekk Sénégal nga jug wax Ousmane Sonko yor na fi ka amel kiiwam euh, sijaadaam sol mbajeyam bu weexam génn di julli ji jumaa Macky Sall ne ko doo julli ji xanaa nag bu dee kilifa diine nga sax lool war nga cee mën a wax en tant que sax nga mbubboo julli gi ne ah naruma woon wax naa wax luy ndey ñu koy tere mu dem jaamu ji yàlla ñepp dañoo noppi ñuy toroxal Ousmane Sonko di toroxal njabootam war nañoo sétane bañu ñu 1000 2000 et quelques personnes ñu naan ñun ñoo wax ñu soog genn lolu gatcha la sax le coup est déjà parti c'est après la mort ñu ray 80 personnes dé mo gëna graw duggu kasso kaso ñoo ñi ñu nekk kaso yi ñu lan lañ lañ defal amna lo xam c'est une honte toog naan sëñ Muntaxa moom moo wax ak diw diw wax ak diw diw bañoon waaye diw waat na moo tax mu ne danañ génnee xaaj bi dinañ loolu gàcce la fi mu toll nii gis nga jéem a layal sëriñ si fi mu toll nii xalif généraux yi jéem leen a layal xoolal gàcce la da ngay ridicule te man Cheikh Bara bëgguma nga ridicule parce que tu as assez tra da liggéey liggéey bu am solo ci projet bi danga nekk góor nekk jullit bëgg Sénégal mais fanatisme bi moo ko yàq man fanatisme man laa ku ma xam waxoon ni naa toog nii sax di am gis-gis bii du ma ko gëm man j'étais tellement fanatique mais face à la réalité man ay rêve du ma ko jënde réalité lu factuel lu may gis sama bët du ma ko jënde lu ñu may wax ak ay lu may foog te li ma gis sama bët moo ma may attitude u xalif généraux yu Sénégal ñëpp ñoo ci teg seen bët mooy nga nangu ko wax wala nga ragal ko wax c'est la triste réalité mais nag lu ma gis sama bët na ngeen ne ma man du ma ko wax ngeen kon nag lii xew ni bëgg-bëgg Macky Sall la du bëgg-bëgg kenn du kenn mo tax Macky Sall def ko Macky Sall mo xamni li mo gën ci mom moment bi li rek la mëna def egg na ci bax talga pour protéger ses arrières li la mëna def du muntaha du serigne muntaha du serigne mayi du serigne ñom ba wax joté la wax dégg nañ ko sëñ Mountakha daa taxaw ne Macky Sall yaa fi du yow ci président liñ fi def kenn defu ko fi waaw yor nga réew mi ci jàmm yaa ngi koy bàyyi ci jàmm te loolu ñun ñëpp xam na ni c'est contraire c'est opposé à la réalité ka nekk teewoon ne Amadou notre futur président waaw futur président Amadou Ba ka nek mo kee mom ka nek ñassene mom dafa taxaw sax carrément né France ñun ñoo génn ci loxoy France ta mamam asafurlaa bayam ah cheikh al islam nga xamni da xex ba génn Sénégal dem Nigeria ngir yaatal diiné ji révolutionnaire la bu mag bay ñass dar bu ñu rek ko taxon di xex bind livre tuddé ko l'Afrique aux Africains yow nga tok di ndolom tok ne Sénégal mënu ku wax opposition ku wax ne Sénégal da ngay bëgg a génne Sénégal ci loxoy France waxoo dëgg Sénégal mënul bàyyi France mënul génn ci loxoy France mais ñoom ñëpp lii lañ fi wax te lii may wax nii amul kenn ku ñëw ne ma konaa li ngay wax du dëgg c'est des vidéos qui sont sur le net kon nag wax dëgg yàlla bu fekkoon ni jël nañ seen responsabilité Cheikh Bara taxaw ni ñu war a taxawee Cheikh Bara Ndiaye ah Ousmane Sonko ak sénégalais yi dund lii ñu dund vraiment vraiment vraiment du kilifa nii lay taxawee ci kër du kilifa nii lay taxawee ci penc bàyyi ba ndox tuuru nga naan waa liñ jot ndox miñ jot for noonu mooy liñ jot a xoos noonu ma maa tax ñu xoos ko loolu gàcce la lii mooy loolu de ñii dee dee dañ ñii torox torox nañ ñi ñi duma duma nañ leen ñi ñi rey rey nañ leen ñi ñi toroxal toroxal nañ leen Macky Sall aj na suñuy élection changé na suñuy suñuy suñu suñu constitution Macky Sall amul lu ñu deful lekk ñu lekk nañu sax ñu ne nekk léegi nag ba ndox mi tuuru léegi ñu ñu ñuy xoosaatu nag ñuy xoosaatu wuy sama ndey da ngay xoosaatu ñu ngay nee na léegi li ñu xoosaatu noonu ndox moomu des noonu xam nga ndox bu tuuroo dina am ay tepp-tepp léegi nee nañ tepp-tepp yooyu ñu récupéré nee nañ leelu noonu ñoom la mooy ñu commencé génne nii te loolu du ñoom du ñoom Macky moo toog xam ne situation bi lii la laaj mu def ko kon nag nañu waxante dëgg Ousmane Sonko il a du mérite les sénégalais ont du mérite nañ leen ko joxaat démb laay naan sama jabar fii ci États-Unis ma ni ko wallahi wa rabbul kaaba di nga dégg bu Ousmane ko génnee nga gis tarixa yii dinañ taxawaat naan ñoom ñoo doon ñaam ci suuf moo tax lii am billahi wallahi su fekkee waxuma ko xola yàlla na jullit yëpp dugg àjjana ma dugg safara billahi parce que damaa xam Sénégal dañoo xam ci falsifier histoire moom nag léegi xaaratuñ sax xaaruñu sax Ousmane Sonko génn ñoom commencé nañ <laughs> c'est malhonnête commencé nañ di jël ndam li di di mënuma ko sax tuddé ndam di jël di jël résultat yi légui diko askanalé askanalee côté parce que c'est Bara li mu wax tay c'est très clair seigne Mountakha moo tax Khalifa Sall génn moo tax xawma kan ak kan génn moo taxaat Ousmane Sonko génn loolu la wax loolu la wax c'est très clair légui pour lan lu ñu nangu loolu ñun ak luñu bëgg-bëgg Cheikh Bara nak dinañ taxaw nako Cheikh Bara arrêtel tey Sénégal histoire am dañ ko falsifier ba fim tolli kenn mënatu ko bind Iba cham Thiam la xawma Habib doon na fi jéem bind histoire Sénégal ba mu tàmbalee la commencé comme nit ñu commencé wax parce que dañ koo falsifié ba kenn mënul bindi ñii dañoo jox seen maam lu ñu amul ñii ñii ñu jël seen maam darajee maam jox ko keneen ñii seen maam doonul woon dara ñu bëgg ñu wax leen dara ci histoire bi moo tax histoire Sénégal day naqaree bind buñ continuer nii te loolu la Cheikh Bara a def nii te duñ ko nangu li mu wax ba ba campagne am di doog a commencé ba ñuy waaj a commencé campagne bi biñ Ousmane Sonko joxoñee joxoñee Jomaay xam nga la wax Cheikh Bara ne boobu bëggoon naa ko tontu mais a boobu du moment parce que man dafa am moment bu may wax ak moment bu doon wax nekkul damay a wax wax wala non damay war a wax wax mais damay damay xool li li wax wax joowoon ndax dañ ma wax ba sama wax jotul dañ maa wax nuñ ma war waxee dañ maa wax ma war waxee balaa maa dinaa xool ñett ndax ndax daja na ma xool yëpp dajawul ma noppi mooy bi mu waxee loolu li ma leen di bëgg mooy bi mu ne Sonko am na ndam ma ne ko loolu de dëgg la ndax daa joxoñ jomaay ñëpp ne jomaay waaye nag li tax mu am mooy sëñ Muntaxa moo ko fay ma ne ko ah ma ko mani tekk di déglu mu ne parce que mars deux mille vingt et un bor ba mu nañ xam ni bor boobu fay na ko ñu ne ko lu tax mu ne parce que Ousmane daa joxoon jomaay rek ñëpp ne ko yow dooñu lam waxoon sëñ Muntaxa lam tontu woon sëñ Muntaxa mooy yow dooñu digal dooñu dooñu dooñu dooñu dooñu ñaan dañ ñuy digal ñu def nee na askan wi tamit loolu lañ waxaat Ousmane Sonko kon moo lay wan ni Ousmane Sonko sëñ Mountakha fay na ko ma ne ko dëgg loolu du dëgg Ousmane Sonko bu fekkee ni li mu won yi bu dee mënta mënta joxoñ mbóot sax ñu topp mbóot bi kon ñun du sénégalais yi duñu ay góor kon ñun patriote yi duñu ay góor dañ ñoo war a roy <laughs> keroog loolu laa ko bëggoon tontu mais situation bi a adéquatul woon parce que ñu ngi doon dem ci ay élection boobu polémique du ko jar maanaam ñu ngi doon ñu ngi doon wax ibbi nañ campagne bi bañ tànn ñu ngi doog tànn jomaay ñi naan naan Ousmane Sonko mooy tax affaire bi amee man moment bi du moment wu moment wu euh, contradiction mais c'est barre lii la jàkkaarloog wax ñu ko ñun sénégalais yi sans complexe nañu sëñ Mountakha fay na Ousmane Sonko ndax la tontu woon Ousmane Sonko moom la ko askanu Sénégal tontu mooy askanu Sénégal nee nañ ko doo ñu ñaan dag ñuy digal ñu def te jomaay nga joxoon ñun ñëpp ñu ngi ci jomaay léegi nee na loolu darax Ousmane Sonko mën kaa am mooy nit ku baax la la lebal muy muy sëñ Muntaxa léegi yàlla fay ko li te loolu du dëgg loolu c'est des fictions c'est des lépp c'est contraire à la réalité Ousmane Sonko lim ñu won sëriñ si wanañ ñu ko ci gore Ousmane Sonko lim ñu won ci bëgg Sénégal sëriñ si wanoon ñu ko buñ ñu ko wanoon Sénégal weesu na fii kon Sénégal du nekk sax pays lay boo bëggee dégg-dëgg Ousmane Sonko patriotisme bii mu jëmbat ak taal gi mu taal xelu Sénégalais bu ko bu ko ñu ko jiitu woon taxawee woon ak ñi fi nekk Sénégal heure bii mooy raw Dubaï. Senegal, Ousmane Sonko gor ak ngarmi lañu ji ba mu mat sëkk won ñu dëgg tek ci tankam won ñu ngor tek ci tankam won ñu Sénégal bëggloo ñu suñu réew jëmbat patriotisme ci suñu xol jàkkaarloog ñun diñu wax réew mi sacrifier bopam tamit ñuy gis kok bu ñëwul bu ñëwul xol leen fi ñu xol fi du gor kon bu ñëwé xol leen fi ñu xol fi ñu né léegi benn sëriñ moko amé lon bor <laughs> non mais ma ni leen non nañu bàyyi ndam yi sénégalais di am ñu koy jagleel nañ bàyyi li yàlla di dogal tamit ñu koy jagleel ay doomu aadama Sénégal yàgg nañu bu ñu sonnee xoola temps yee yàlla nañ yàlla dimbal ci Macky Sall yàlla nañ yàlla musal ci Macky Sall léegi résultat commencé nañoo am léegi nee nañ affaire bi Touba la jóge quoi te Sénégal nii la mës a sosoo nag mooy que yàlla daf ñuy defal ay teraanga même jàmm juñ doon am a la la wax sunu mag ñi xam nga Sénégal ay Abdou Diouf te boobu guerre froide la woon temps yi ñuy wax jàmm yëpp ñu ngi doon rey ay nit kenn du ko yëg parce que benn télé fi benn rajo lii nii ngi doon am ñuy toroxali opposant maanaam liñ tuddee jàmm ay balu fetal mu ngi doon daw parce que Senghor fii nii def na fi manifestation ñu rey fi quarante personnes loolu jàmm la mais dañ doon fen naan non gis nga jàmm ji ñu am nii ah ah Sénégal jàmm ji mu am ah yi ñoo ko ñaan te di toroxal ay nit di nangu ay liggéey nit di nangu ay këru nit di toroxal ay góor tuddee ko maslaak waxtaan kenn du ko wax ñu koy nës nësal loolu lañ tuddee woon jàmm te loolu musul doon jàmm benn nit bu ñu rey sax nekkul jàmm léegi nag ba ci nguuru Macky Sall moom Sénégal di tàkk moom ñuy rey ay bëm bëm benn jour ñu rey quatre personnes léegi ana li mag ñi ñaanoon anamu bàyyi leen sosal mag ñi bàyyi leen sosal mag ñi ñu bàyyi sunu suñuy suñuy responsabilité ñu koy jë ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy dénk ñu gaañu ñoo xam ne génn nañ àdduna réew mi mag ñi nekkul ñoo koy defar dem nañ def nañ seen wàll dem nañ li si def ñun ñoo ko war a defar